Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi seetaan seen site 221 euh, people jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi ànd ak ñun ba léegi ci site bi continuer leen ci abonnement yi flèche bu la nga def ko nga bës mu def bleu yaa ngi ci biir bépp vidéo bu ñu dugal lu jëm ci wàllu actualité wàllu borom xam-xam yi nga xam ni dañuy faral di dimbali jaamu yàlla yi su ngeen fa demee fi naan 221 people yaakaar naa di ngeen fa fekk ñu mën a faj seen aajo rawatina nag tey jëmm ju tedd ji ñu jàkkaarlool tey soxna si baax si ñu naan ko taalibe Cheikh naa Cheikh Sadbou euh, fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu tolluwaayu réew mi fas yéene waxtaan ak moom jafe-jafe yi mais surtout actualité bi nga xam ni mooy xew fan yi soit ci këru diine yi soit li nga xam ni mooy feebar bi. alors euh, fii ñu ko dalal nag tey ndaw soxna sa loo xam ni ku yëngu lu jëm ci wàllu xam-xam la surtout seet. Euh, lu jëm ci wàllu seet seet daf ci bëri façon nag léeg-léeg sax ni dégg seet jëm ci xalaat xel mi dem ci petaaw mais moom kii ngeen jàkkaar loolu yàlla may na ko loo xam ni day wax ci jaww ji di wax ci li nga xam ni mooy ci ay rawaanam ci xam-xam di seet leneen sax lu dul petaaw alors euh, ñu dalal ko fii numéro yi nag mooy affiché noonu ci bas d'écran bi yéen ñi ngeen xam ni yéen a koy seetaan lépp lu ngeen fi déglu soxla ko ci kàttanu yàlla soo ko maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa 221 people mm-hmm. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi. Mm-hmm. di nuyu sama yaay ji faal yal na yàlla guddal fanam te wérali cëram mook bépp yaay. Mm-hmm. di ñaanal sama papa ji tin yàlla na xippee àjjana. di leen nuyu nag di leen ziar di nuyu waa àdduna wërngal këpp. di nuyu ñëpp ñi tëdd ci lali hôpital yi maa ngi leen di ñaanal na yàlla fëgg seen bopp. ñum hmm. feebar bi ñum dalagul yàlla bu mu leen dal yàlla nañu yàlla dàqal mbas mi mu génn suñum réew ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon aywa euh, tey euh, c'est-à-dire dañuy waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu xam-xam mais avant xam-xam bi euh, taalibe Seexna Seex Sadbu feebar bii ñu dugg yow ku la ci wàllu xam yàgg na fi parce que bu ñuy xool depuis mois de décembre la ba léegi peut-être c'est la première fois feebar bu toll nii ni mel wàcc ci àdduna bi du ma ci réew mi Sénégal mais ci àdduna bi du fi ay weer boobu ba léegi lu bëri yàqu na alors kenn xalaatul woon sax woor weeru koor bu mel ni donte jàll na ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla teewe ko ay déwén yu bëri loo ciy wax. waaw li ma ciy wax moo di ne. dañuy dellu di santaat yàlla. Mm-hmm. di naan ku dul may sa bopp. Mm-hmm. suñ borom lu mu la may jëlal. Mm-hmm. wax dëgg yàlla weeru koor bu mel nii mosu fee am. waaye nag dañuy nangu. di xam ne dogalu yàlla la. te it ñu jël suñuy matuwaay. ñu jël suñuy matuwaay. moo di ne. nañu respecté li ñu kër docteur wax. Mhm. te tamit nit ku nekk nga jàpp ni yaay sa docteur bopp. Mhm. boo jàppee ni yaay sa docteur bopp suñu defoon loolu li am ci réew mi yëpp mën na fee bañ am. mën na fee am mën nañu bañ a tëj bunt. mën nañ bañ a arrêté oto yi. Mhm. mën nañ bañ a tëj jumaa yi mën nañ bañ a tëj lépp mais senegale si boppam ngëm-ngëm moo ko yombul. moo des ci moom. ngëm-ngëm moo ko yombul suñu ngëm-ngëm moo des. waaye bu ñu gisee li xew bitim réew. xew fii ci suñum réew. ñu war a xam ne feebar bi am na ñu moytu. Mhm. ñu moytu lu baree bari. moytu bi sax moo jur tey ba léegi ci wàllu actualité nga toog dégg ko mhm. dëkk bi ñu naan Chine Wuhan euh, ñu ngi doon toog di ko dégg foofu alors mu raam ba dugg biir bitim réew yàlla tere nag mara di Italie li mu jot a rey yàlla na fi yem. yàlla na fi yem dugg biir Sénégal mais ci côté matuwaay yi comme wax nga ko léegi ci côté moytu est que système bi baax na parce que boobu ba tey euh, ñu ngi dégg ay cas ci wàllu couvre-feu bi alors wax nga ko léegi weeru koor bu métti lañ ci woor donte jàll na liggéey yu bëri yàqu na soit euh, tëju guddi gi génn bëccëg gi daje mbooloo moomu di am est-ce que rawul euh, euh, jotul ñu changé beneen si parce que tey yaa ngi toll ci 41 personnes yoo xam ni dee nañu doon te yàlla na fi. wallaahi wallaahi wallaahi hmm. mooy li ma wax rek loolu laay waxaat. Hmm. moo di ne. Hmm. nañu jël suñu mataay te tamit sama maam da daan wax naan taal bu tawee tàkk boor bu nekk la ñu koy. comme def nañ lii. ñu gis ni dara demul. nañu jéem a changé ñu xool beneen méthode waaye beneen méthode boobu ñuy jël tamit nañ ci boole. ñu may nit ñi ñu mën a dem daani seen doole. ak matuwaay. ak matuwaay. Mhm. ndaxte comme li ma wax sànq rek nit ku nekk boo jëlee ni yaay sa docteur bopp. Mhm. yëf yi du metti bii daal doxut. bii moom. ñu ngi jéem mais doxut. du ma doxut de. waaw ndaxte lu la bu fi njiitum réew mi wàccee waaye gisuñu ci avancement daal man boog gisuma ko ci. ci côté bi daal maanaam ndaxte bu ndaxte bu 21h nga tëju. Uh-huh. boo xëyee suba teel ñu daje. de nee nga ma sax jaar naa rond point Casma mais damaa tiit. dama ni est feebar bi ñi dama ni nii est-ce que ñii feebar bi est-ce que ñii xam nañ ni feebar baa ngi ci biir réew mi. wala nga dem booru géej. Mohamed man mm. damay doxantu géej. Mm-hmm. chaque vingt dix neuf heures trente. Mm-hmm. damay dem géej doxantu balaa vingt heures ma wàññeeku. waaye soo demee géej dafay nekk ci doomu aadama danga naan ñii zéro heure sax taxul ñu jeex. taxul ñu jeex. ñoom daal dafa mel ni daal man daal man daal xaw ma lan moo leen daal. man daal vraiment dama commi ci système boobu par rapport ak euh, guddi gi ñuy tëju daal foofu ngay waxee que ni. Euh, waaw jarul sax maanaam ñu changé beneen système bàyyi ñi ñu xawal li parce que daje boobu noonu alors que dem liggéey moo ko gën. jeex na ñu tëj bërëbu liggéeykaay te nit ñi di daje jëriñul dara. ok d'accord jëriñul dara. changé système daal. changé système xool beneen système boo xamante ni nit ñi dina ci. Euh, gis seen bopp quand même. Mhm. waaw ba pare tamit ñu jël suñuy matuwaay respecté mesures barrières yi. c'est ça moytu lu bari. ok d'accord euh, dina ñëw sax lu waral sax feebar yi di wàcc léeg-léeg ci wàllu àdduna bi wala bal balaa yi ci wàllu feebar sarax secret bi mais alors beneen bi ñuy ñëw nag mooy tënk rek parce que lu temps bi bariwul. Mm-hmm. maanaam mooy actualité buy xew fan yi maanaam euh, li xew mooy ci wàllu diine. Euh, yenn médias yi laa wax parce que ñun ñëpp ci am part de responsabilité léeg nga dégg ñu invité ku mel ni Ahmed Khalifa Niass ci tur bi la ñuy jaar parce que moom moo feeñ. léeg-léeg bu en général bu jaaree ci benn barab yi rek wala ci yenn barab yi loxo day dem génñiñ mm. te it suñu maam yu baax ya wax nga ko léegi maanaam doon doon sax doon doon sax rusante nga dégg sax yenn kàddu yi alors tey nit sax du bokk sax ci benn tarixa bi bëgg dugg ci beneen détail boo xam ne heure bu waxee loxo dem gémmiñ waaw xam nga loolu lu ko waral mooy mm. yawa yawa yawa kenn du ko di wax nit mm-hmm. am na nit ñoo xam ne moomuñu yawa yawa yawa wallaahi boo yawa Mm-hmm. di wax lu leen neex di def lu leen neex. fii sa àll wa lu mu kawee rek jàppal ne am na ku la gën a kaw àll wa sa àll wa lu mu suufee jàppal ne am na ku la gën a suufee àll mm-hmm. waaye nga defee ne yow rek yaa xam yow rek yaa mën loolu suñu borom dong moo ko yayoo à benn baat bi la ñuy dégg man rek la à chaque fois wala sama baay wala ba ma la jàngalee lii waaw ak ba ma la defalee lii mm-hmm. Mouhamed loolu lu jara moytu la waaw parce que for nañ ci woowu béykat yi ku mel ni oustaz Assane mi ngi toog loolu ñëpp a koy ñaawlu ah duñ ko nëbbu que mi ngi toog daal di ne euh, lii nga xam ni ba nga ñëwee di ma wax sa tudd lan laa la defal alors ci kaw lan laa la defal boobu nit a kii yow mi toog di seetaan sax da ngay ruus ah, parce que nga naan kii est-ce que ut am na ko. man dama ne bëreet ni xale yi fay leen télé bi ñu ne déedéet duñ ko fay parce que man bugguma ko uñu sutura doomu aadama. Oh. ndax bam koy defal loolu kenn yëgu ko. te amaana dañ ko séq moo tax mu defal ko ko. te ñaanu ko daf ko yëgal ko séqul woon du ko te dalaa tey jii jii tey jii bu sa soxna muccoon. Mhm. nga ñëw ni ma taalibe Cheikh na sama soxna mucc na su ma amee gëleem. ak la mu mhm. àndal jox la ko. Mhm. ndax dañ koo séq. wallaahi. nga defal ko nit kooku séqal ba pare toog tele di ko wax. te nit na lu ëpp lool na pat te nit def na lu ëpp naan lu bay lekk bay cëpp cëppi naga nga ko lekk ni mu gëg moom. moom bu dee yàlla lay wut ci loolu mu def amatu ko ci waaye oustaz Assane man dama ko naw ndax dañ koy yar dafa am éducation de base dafa am éducation de base maa ngi koy nuyu. Mhm. di ko naan fi mu jàpp foofu rek la na fa jàpp. te ñu moytu yenn yi daal te ñu moytandiku yenn yi. te aussi tamit. Mhm. maa ngi lancé message directeur programme tele yi. ok surtout. ñu xool ñi ñuy invité ak ñi leen di booleel plateau. Mhm. parce que dafa am ñoo xam ne dañu gaaw a mam yow la ñuy bañ. Eh, te bii mooy deux fois. te Ahmed Khalifa Niass nag man sama kilifa la daal ndax kilifa la. waaw lu mu mënti wax ak lu mu mënti mel kilifa la. te duma ko manqué respect mais dafa war a xam ne moom exemple dafa am ñoo xam ne dañuy jël ci moom exemple. Mhm. muy wone yoo xamante ni fuñ ko tuddee rek ñi nga xam ne ay royukaay lañu pour moom duñu rus. te alors ngi ci mbas mi. waaw te alors ñi ngi doon séentu ci moom tey mu toog. ni def leen ñaan gii. Uh-huh. def leen ñaan gii def leen sarax bii. pour yàlla musal ñu ci mbas mi. Mhm. mais mu toog di uññi sutura doomu aadama wax dëgg yàlla man loolu moom. sama kilifa la waaye rafetlu ma ko. doy na moom it naan rafetlu ma ko. ok d' accord mbokk yi loolu la doon lancé rek li nga xam ni su juste que euh, nii la mel en fait lépp lu xew day wax naan sama nopp duma ci dégg lu ñaaw wax na ko léegi ba mu ko waxee dama ne xale yi jug leen ngeen fay télé bi donc noonu la ko yàlla bindee beneen bi nag mooy ñu avant ñu ñëw ci wàllu seet ak wàllu xam-xam tuuti tëj émission bi mooy toogaan nga dégg ni ay say doom wala say sët wala ay xale yoo xam ne ñu ngi ci biir cité yi di def naka sudul noonu tudd nañ ci lu mel ni cité Mixa wala Maris di jouer genre film yoo xam ni ci lu bon te alors que ba tey ba léegi day ëmbaat tënkaat ni ñu ngi ci problème yi alors que dañ ci war a jàngee ci suñu borom. nga baal ma Mouhamed. Hmm. man ñooñu damaa foog ne xanaa ndax seeni jur dañoo génn àdduna. laa ilaaha illallah. ndax yaay. Hmm. man amal milliard di ma indil bu ma xëyee nga yennal ma màkk guddee nga fanaanal ma Medina. du tere dama lay wax li ma bëgg li doomi nit ku baax di def. doomi nit ku mooy li ma wax léegi loo gis éducation de base da cee am solo. Mm-hmm. ñaaw na de. seeni waajur ñoo leen bàyyi ci ni ñu nekk ba mu ëppi loxo. ñu am fi du génn. waaye gis nga bu ma yoroon nguur ci réew mi. Mm. bu deraayee di nga tegu ci raay bi ñun ñi xalaat mbas mi di xalaat suñu mag ñi nu ñuy muccee. nu ñuy muccee suñu gone yi nu ñuy muccee ñun ci suñu bopp nu ñuy muccee ñoom ñi xalaat di dem di foo ah ak di def naka sudul noonu Mouhamed. ñaaw ku tiitul man tiit naa de. d'accord ku tiitul man tiit naa. nañ leen defaraat toogaa yi. Mm-hmm. ñu moytandiku yenn yi. te xam ne réew mii ay mag ñu baax a fi nekkoon ba yàlla dogal ñu dëddu bàyyi fi jàmm. ñu fi rawal jàmm. d'accord di def lu baax xam ne ay doomi nit ñu baax lañu. ok d'accord c'est juste loolu tamit bokk na ci li muy wax rek li muy métti lu en fait numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi 221 people la peut-être yow mi soog a jot vidéo bi mën nga abonné yëngu bëri lu ñuy dugal ci wàllu ay borom yi xam-xam ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu seet et puis tamit ci wàllu actualité lépp lu xew ci réew mi boo ko bëggee xam ñëwal foofu en fait beneen bi ñuy ñëw nag mooy ci dañu gëstu ci say mbir ba tax ñu mën a ñu parce que fii duñ fi daalal koo xam ni amul xam-xam Mhm. parce que ñun am nañ ci part de responsabilité. Mhm. alors yow li tax ñu ñëw jël si la mooy. dañoo mhm. gësu say mbir. ba xam ni am na lu la yàlla dénk ci wàllu seet. d'abord ñu buggoon a xam rek tuuti nan la la dikkee ci seet gi. waaw Mohamed. Mm. mën naa ni mayu yàlla la. Mm. mën naa ni ndono la. Mm. ndax sama baay chaque jour ma wax la ko. dafa nekkoon borom xam-xam bu mag. àdduna yëpp xam ko. yàlla dogal man tamit suñ borom cërale ma lii. ma di ci dimbali jaam ñi. Mm-hmm. nee naa la samay taalibe baay ba tey ñooy samay taalibe. ak leneen lu ma ci yàlla ci cërale bi ci topp mooy mbiru suñu boroom la rek ma koy gërëmee Mawlaana ndax bu ko neexoon. gis nañ fi ñu fi seen baay nekk médecin mënuñoo piqûre. dëgg gis nañ fi ñu fi seen baay nekk borom xam-xam ñu dem doon dooni maçon. Mm-hmm. xëj na bu fekkee sama baay dafa doon borom xam-xam dëddu xëyuma xëy lal toog de ne sama baay da koo doonoon ma ñëw doon ko yàllaa ma ko sédde te képp ku ma xam baa nga bokk ak man di nga xam ne man li nekk woo sax sama domaine. newuloon sax sa domaine. suñu borom ma ma ko mm-hmm. waaye nag lu ne yàqal na ma ko waaye lu ne defaral na ma ko it. ok maa suñu borom bu wér a wér. moo la permettre sax léeg-léeg nga ni euh, bëri na sax ñuy waxtaanee wàllu xam parce que sëriñ si bëri nañ trop léegi parce que fii ku ne la ñuy dalal waaye ku fi jaar ku amul xam-xam doo fi jaar parce que mm-hmm. képp ku ñu jël gëstu nañ seen mbir wax naa ko. Mm-hmm. yow bëri looy faj mais avant faj gi seet loolu moo la permettre sax tey koo xam ne nekkul fii mu nekk feneen fu sax ailleurs feneen fu dul sax hors Sénégal wala ci monde bi nga ni ko boo ma woowee taxawal foofu ma téye suma loxo wala ma téye su fi ma toog di wax ak lépp lu ma la wax du dañ. yàlla lépp lu ma la wax du dañ Mouhamed damay seetee carte damay seetee ndox damay seetee petaaw damay seetee carte damay seetee ndox damay seetee petaaw. damay seet ci esprit noo diw ma noo tudd. yow noo tudd. ma ne la Mouhamed laa tudd. lu sa yaay tudd. nangam sangam fenn. ma wax la say wax. waaw te du dañ. ci kàttanu yàlla. ak fu mu mënti ne. incha allah Mouhamed nee naa la man damay dugg sama oto nit woo ma ni ma urgence taalibe Seex la mënu xaar ma wax ko li ma koy wax te du dañ. Seydina Mouhamed yëkkatil micro bi. laa ilaaha ci yàlla. mais njëriñam dëgg lan la. parce nga dégg koo xam ne yow seet seet mais bëgg nañ xam maanaam seet maanaam njariñ li lan lay jariñ ci nit ki pour mu ne damay seetlu. waaw yow tey da ngaa bëgg a takk soxna. waaw. doo dem nga xool sa soxna soosu ndax boo ko takkee dina la jigam déet ndax wërsëgam dina la yoon ndax di am doom. loolu de solution la. da ut place. nga def fa demande say moroom def fa demande doo dem xool ndax di ko jot wala ban sarax nga war a génne. Mhm. da nga nekk ci bërëbu liggéeyukaay doo xool ndax am nga fa ñulay lay fexeelam déet ndax danga fa yokk wala fi nga yem ngay yem wala dañ la fay dàq. wala dama bëgg a tukki. da ngaa bëgg a tukki dugal visa doo xool ndax di nga amam doo am. Ah, te loolu yëpp day tënk maanaam. il faut ma xool wala tukki wala nga bëgg tukki di xool ndax réew ma nga dem jig na la am jigu la. nga bëgg a luwee kër bëgg a tuxu ngay xool ndax kër ga jig na la jigu la. te loolu yëpp day tënku ci. loola mooy génne ci wàllu sarax. incha allahu rabbi buñ la seetalee tey jii nga bëgg a tukki ñu xool xam ne foofa boo demee danga fa am tolof tolof mën nañ koo fànq ci kàttanu yàlla dañuy xool sarax bi mu jaral la ko te nga mën ko nga def ko. yaa xam dañ lay wax ni koy defee nga def ko yaa xam da nga defal la. d' accord ci ñaari ok c'est-à-dire boobu day tënku ci maanaam du loo du looy wax nii loolu li ngay seet la comme li lay seetloo ci wàllu rawxaan mu ne la Mouhamed mii yaa ngi koy seetal mais saraxam nangam sangam la. waaw kay da ngay seet tey Mouhamed mii lii mooy jafe-jafeem waaye bu defee nii ci kàttanu yàlla du egsi wala bu egsee nam waroon a dalee du ni dalee. man jaaxle naa waa léegi d'accord léegi beneen point ma bëgg ñu ñëw euh, temps amul mooy ndax mës ngaa seetal nit nit ki nekk ba fu mu nekk moo xam fii moo xam bitim réew moo xam fu nekk centre Afrique mu toog war a génn sarax am kaa urgent. Mhm. toog ba mu neex ko woowaat la ne la ba nga ma sarax ba nga ma waxoon mois de mai ñu ngi ci mois de octobre léegi ndax mën naa koo génn doo ko dama la naan da ko bëgg a génne nga ne ma man la mënut a nekk nañu xoolaat ba xam. Ah. ndax des fois dinaa la xoolal tey ni la génneel sondeel. nga ni ma waaw dem ba mu am fukki fan nga bëgg a génne sondeel fekk sondeel ba dem na suukar a fa ne. nu mu gën a gaawee daal. waaw sarax moom soo ko mënee tamu doy la. suñ la ko waxee tey soo ko amee tey génne ko mbaa suba. bu mu am ñetti fan te génnewuloo ko. d'accord léegi dañuy ñëw ci beneen point ci wàllum faj euh, ñu génn ci wàllu seet gi mbokk yi ku ko soxla nag loolu euh, day nañ ko doon ñamas tuuti waaye am na lu ma xam leneen sax lu dul seet d'accord beneen bi ñuy ñëw nag mooy wàllum faj bi yow da ngay faj parce que ñun foraat nañ ci wéyu béykat li tax ñu ñëw jël si la am nañ information que ne da yëngu ci wàllum faj parce que seet ak faj. dëgg la am na ñoo xam ne dañuy seet kese mais yow ci wàllu faj bi léeg toog nañu ne mbante maare wala yeneen garab yi day faj ci wàllu feebar bi wala wàllu virus yenn te feebar yu gën a garaaw yaa ngi faj. waaw mbante maare. Hmm. damay may jaam yi damay may julliti àdduna yi. ñu déglu ak ku dul jullit sax. Hmm. ñu déglu li ma leen di diggal ñu def ko. Hmm. mbante maare. bala may ñëw ci mbante maare damay ñëw ci ngeer. ngeer waaw da ngay jël fukki xebu xobu ngeer ak juróom xam nga xob bi dafa ndaw. mooy quinze fukki xobu ngeer. nga jël ak juróom. Uh-huh. ngeer li ngeer. man danaa ci yóbbaale sax parce que dama ngeer boo jëlee xob bi fukki xob ak juróom. waaw fukki xob ak juróom ngay jël ci ngeer mi. waaw nga jël juróom ñaari xobu mbante maare. Mhm. juróom ñaari xobu mbante maare. fukki xobu ngeer ak juróom. mooy quinze xob. waaw ak sangaraamu jinjeer. waaw ak takku naanaa bu cent franc. nga raxas ko ba mu set. nga jël sa un litre demi mooy butéelu Evian ndox bi. Mhm. teg ko si teg ko si kii bi. taal bi. teg ko ci taal bi. ba mu bax. Mhm. su baxee bul fay gaz bu ko wàcce pardon raxasal ngeer mi. Mhm. ba mu set. Mhm. nga raxas mante maare bi. def ci marmet bi. daggate sangaraamu jinjeer bi def ci. raxas cabbu naanaa bi noonu ba mu set def ci. nga def ci. rek tëj fay gaz bi. tëjal fay gaz bi. ba mu am 15 minutes. nga jël sa seggukaay. wala sa moso bu set nga segg ko. boo ko seggee pare foofu nga ko seggee noonu. Hmm. bala nga koo sotti ci butéel bi. Hmm. jëlal sa doomu limon bu verte limon nga xar ko ci digg bi paccal ko ci. paccal ko ci. daal koy sol ci sa butéel di ko naan. ci kattanu yàlla amul dosage nu la neex naanee ko. amul dosage. nu la neex naanee ko na doon un litre et rek. lu muy def ci nit ki après bu ko naanee. bu dee góor la bu virus bii ñuy wax. waaw bu ko fekkee ci yow da koy dindi. bu ko fekkee ci yow da koy wéral bu ko hmm. fekkul ci yow du ñëw bu ñëwee da koy rey. ok day faj prostate. Mm-hmm. day faj tànk yuy ruux. Mm-hmm. day faj ndiggu luy metti day faj bët yu lëndëm. maanaam daal ci gàttal euh, toog ngeen sax dégg ni euh, lu mel ni artemisia bi naroon a jugee fi ñu naan euh, Madagascar yéen ngeen di yëngu ci wàllu xam-xam di faj donte ne yéen a ngi toog na neem boolewul neen ci d'accord mm-hmm. mais kon xam ngeen ni ne wala da ngay ñëwaat tënku rek ne lépp li nga xam ni médecin yi ko fiy jëlee sax ci gàncax lay jugee. ma ne la comprimé yi ñuy naan fu muy jugee. gàncax ci suuf. sama mbokk chinois yi. Mhm. doon ñëw di jënd doomu ni vaccinin yi. Mhm. mooy garabu niim. garabu niim bi waaw mooy doom yooyu di ci génn noonu. Mhm. dañ ko daan dajale par saako di ko jaay ñu ni dañ koy yóbbu ci la ñuy liggéey comprimé ni vaccinin ba ma nekkee xale laa la wax lépp loo gis fii tubaab di ko joxe ci gàncax la jóge il faut mu ànd ak ngëm-ngëm. nit da ngay liggéey sunguf ak reen fekk sunguf ba ak reen ba la muy def loolu la comprimé bee di def yàqu ma nag liggéeyu comprimé dama lay wax. mais léegi ci gàttal. d' mais ci gàttal tuuti rek ñu avancé tuuti daal di tëj. Mm. maanaam mooy. kon euh, dëgg la gaa euh, waxoo ni parce que njëkk nga fee taxaw nii ku leen wax nii am na kuy faj feebar waxul li am. mais ba nga gëstuwaatee. da comme ni médecin yi di gëstoo. waaw xam nga ne na manta mbaare mi ak lii ngay wax nii. am nga ci solution boo xam ne ku ko jël peut-être. virus bi parce que man du wax ci lu ma xamul boobu xaw ma lu feebar feebaree. Mm-hmm. xaw ma lu feebar feebaree xaw ma fu feebar jóge. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Hmm. du ma wax lu ma xamul. boo nit booy wax da seet ni ay malaakaa nekk ci sa mbagg. booy wax da ngay wax lu la wóor man damay gëstu. Hmm. te ba ma gëstoo gis naa ni lii baax na. loolu da leer na. gis naa ni lii baax na. te nañ ko jëfandikoo waxuma la sax virus bi waaye wallaahi la azim muy jigéen muy góor ku ko ci jëfandikoo di nga ma woon ma taalibe Cheikh. d' accord ñu ñëw ci deux dernières questions benn bi mooy ci wàllu njurum doom mbokk na Cheikh Sadbou ñu ñëw mooy ci deux dernières questions mooy ci wàllu njurum doom ñaari point benn bi mooy ki nga xam ne am na mais ba pare dafa taxaw doom ji am na dix ans am na huit ans am na cinq ans wala sept ans cinq ans sax peut tane na mm-hmm. kooku est que yow parce que ñu cas yi ma lay wax nii dafa bari fii ci réew mi. ku am doom ba pare taxaw waxuma ki amagul. Mhm. ndax am ko ci solution ak ki nga xam ni mhm. musul am. ci kàttanu yàlla ku musul am boo demee bañ la say trompe bouché wul boo ñëwee ma faj la te du yàgg. ah mais ba pare. day dem xool ba xam ndax ay trompe bouché woom déet yaa ngi dégg. Mhm. am na benn feebar boo xam ne bu nekkee ci butitu njurukaayu jigéen dagg rek. dagg mooy tax doom mën faa jaar. dagg rek. taman du ma dagg waaye bu ma boo seetee bañ xam ne war nañ koo dagg mën nga koo dagg sax sa am doom jafe waaye boo ñëwee ma faj la ci kàttanu yàlla. sidna Muhammad rasulullah man a incha allah rabbi dëggam yàlla ànd na ci. mais ku musta am nag. ku musta am. waaw parce que des fois nga koo xam ni sëy na la def naa huit ans dix ans euh, mu man mënuma am doom. ñu seet la nga dem ci kër docteur ñu seet la bani la yow mii mën nga am doom. ay nen a ngi ci sa biir nga ñëw taalibe cheikh na seet moom tamit façon mu seetam ba xam ne mën nga am doom incha allahu rabi da ngay am doom ci kattanu suñu boroom. man jaaxle naa. maa ngi ci 14 turandoo. parce que li ma faj boo juree jigéen dag ma koy tudde allahu akbar. maa ngi ci 14 turandoo. billahi wallahi tallahi ay malaaka nekk sama mais fajum juru doom tamit day ànd ak gëstu ak sarax. waaw waaw ndax des fois rab mun des fois mu nekk def def nga sëy ci këru famille nekk faak ngeen baal ma sa wujju péccër wala sa wujju ñu bañ nga am doom ñu téye sa biir des fois mu nekk feebar. d'accord ok des nag mu nekk ci ku góor ki. si loolu laay ñëw. mën nuy yow mën a formé góor day ñëw. ay ñaq laa koy jox muy naan ci kàttanu yàlla. waaw parce que léeg nga gis koo xam ni day am jabar me moom alors que affaire moom moo oyof bàyyi jabar ji rek muy dem. dama ni alors que moom mbir mi ca moom bu ñëwee. waaw dafa am ñaq yu ma koy jox muy naan ak sunguf. moom bu amee seetlu ci la mu daan bàyyi bu ko naanee semaine na xool li muy bàyyi léegi. laa ilaha illallah. ci kattanu yàlla. bu dee moom la woon. incha allah rabi ndaw si dina. tey rek ngeen dégg dégg de léegi nag. soo ñëwee mënoo am doom sa règle réglé wul. sa règle laay réglé ba mu réglé. damay réglé sa règle ba mu réglé parce am na ñoo xam dañuy gis règle benn weer toog ñaari weer ba ñett duñ ko gis. wala bu ñu ko gisee gis ko 15 jours une semaine. waaw loolu normal waaw day jékki saay waaw loolu waaw. kay dama koy defar ba ngay gis règle normal bis yu normal yi. mais damay ànd ak sama jëkkër mais su ma su jugee rek manu bi day génn. waaw loolu da am feebar sa butitu njurukaay. te loolu tànk mi ngi am ni ku du am doom. waaw du am la maa gis loolu wax na dëgg maa ko gis man. ñu faj ko il faut ñu faj ko. laa ilaaha illallaah ànd sa borom kër su paree lam fa wàccoon yëpp booy jug muy génnaat boobu feebar moo nekk ci butitu njurukaay bi dañ koy faj man kay gis naa loolu léegi nag ñu ñëw ci beneen dernière question mooy ci wàllu euh, xale yaa ngi jëm examen euh, bàyyi nañ sax le deux juin pour présent nii euh, ñi nga xam ne dañuy def examen te wàllum xëccoo moom ci wàllu kayit examen wala soit kayit wala soit ñi nga xam ni bëgg nañu tukki wala ki fa nekk am problème ku tukki ci wàllu xëccoo. wàllu xam nga examen bi man dama si am lu ma leer damay laaj ndax examen bi entrée en sixième kese la. wala waa BFM dañuy def ak waa def ñëppay def. entrée en sixième BFM BAC xaw ma nan ak nan ñoom ñëpp dañuy def examen ñoom def incha allah rabbi nañu góorgóorlu ci kàttanu yàlla xam nga ren ñaata weer la xale toog jànguñu. bëri na de. examen dina baax. trois mois ah. daaw da nee woon nga ma fi xale bu ma woo ma defal la loo xam ne. ba ren maa ngi ko waxaat ci kàttanu yàlla ndax ba ma koy wax daaw xaw ma ndax dinaa. fekk ren da ngay fayeku parents yi wala fayeku woon. non non man fayeku ma leen. benn parent loolu tu ngeen a du teeñ la lëf la boo ko mënul doo ko lebalee. laa <laughs> ilaaha illallah. léegi nag fayeku ma benn parent buy ñëw ci taalibe Cheikh na rek. indaale lem d' accord mais euh, taaliba Cheikh na ki rab jàpp boo ko xoolee lan lan ko xamee. koo xam ne ban melokaan lay mel koo xam ni leer na la kii waxuma la ki dof de ki nga xam ne da koo jàpp. xanaa xamoo ni boo nee surtout bëtu nit rek war ngaa xam ndax am na àndaaleem déet man su ma la xam naa ndax yow kese la wala am na lu la topp. barke Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. jàkk xool ma ma xool la. indi nañ fi malaat mu hmm. ñëw yaayam indi ko. mu ñëw dugg rek. Mm-hmm. waaw wala day ma xool mu xool ma ne sa mooy tàkk moo tax duma la xool. ma ne yaa ji sa doom nangam ak nangam ak nangam. subhanallah allahu akbar. te loolu dañul yaa ji ni ma dem naa ci nangami sëriñ li nga ma lañ ma wax. booy faj nag da gis loolu moo ah. booy faj du moo doo nit du. xale bi léegi mooy ñëwal boppam. ma ngay jóge ba Malika mooy ñëwal boppam day jékki-jékki ni ma maman taalibe Cheikh na man la diw. dama faa bëggoon ñoo ma ne kër gi sa kër la amoo sens interdit di ñëwal. d'accord des fois day ñëw uniquement te dara du ko indi. ok euh, ki nga xam ne nag wax nga ko bay ci wàllu rab moo tënku tey mu jékki saa rek génn dem affaire yi dëgër. waaw ànd naag euh, euh, Demba Ndiaye mais Demba am na këyit ba ñibbisi. waaw moom ma nga fa rek. xamul lan la ma nga toog rek affaire am dëgër na daal. mënta am këyit liggéeyam mënta taxaw day am. mu ñibbisiwaat fii sax mun na sax dagge bee ñeegu bee ñëw ñëwaatee affaire am dëgër koo xam ne daal affaire am dafay dëgër quoi. day am rab mun na ko def waaye def defit mun na ko def de. dëj la. wallaay lazim gas la suul. Seydina Muhammad mu tëju. loolu am na. sa yaay mi jaayoon ay oram mbaa mu tegg na tam nga dem sax da koy réccu ndax munoo koo may cent franc sa morom ya fa fekk ak ña la fekk ñëpp romb nañ la. ngay ne la wax ak yow buñ la nee demal béréb sàngam boo demee doo fekk ñu liggéey mbaa boo ñëwee kenn du la recevoir. allahu akbar. barke Cheikh na Cheikh Saad bu amee. mais daal yow am nga ci ay solution. ci kàttanu yàlla dañ lay sang ok léegi dernière question bi mooy ki nga xam ni. wala ñu jox la ñu def la loo xam ne foo toog ci mbooloo ñu lay jëppalikoo di la puus ak naan ni ma ko bañee xamul boppam. am na leneen lu ñu déewaat fii que ni ci wàllum xëccoo ba tey koo xam ne dañ ko créer sax tëj ko wala ñu créer ko nangu alalam surtout alalu ndono ci wàllu yooyu injustice comme ni ñu koy waxee. loolu tamit ñi la xam. xam nañ ma daal xamal mën nañ ne ma laaj ko ci loolu ku ku ci yàlla may. loolu laay bañ injustice laay bañ day xasal sama yaram. ndono ñu góor ci rek nga am ci sa wàll ñu ne kenn du la ko jox na jaar ci yoon rek ñëwal ci taalibe Cheikh na danañ ko def na mu waree te nga jot sa alal ci kàttanu suñu borom xëccoo mbirum ay xëccoo meere xëccoo post ak yii ñëwal ci taalibe Cheikh na ci kàttanu suñu mais ki ne ci biir moom for naa ci woowee ñett fan nga koy génne. <laughs> ku ñu téye bu fa amagul ñett bu amagul ñett fan. nga génn ko ci kaso bi kàttanu yàlla. su fa amagul ñetti fan. ñu ñëw indil ma ñaari dàllam yu mu daan sol. ma def ci li ma ciy def <laughs> bu taxawee génn de. ci kàttanu yàlla. baax na lim xam bari na mbokk yi euh, li duuf ci nag bi xaajul ci cin bi luñ def lu dul bàyyi ko mu tàggatoo mais nag ku yàlla may xam-xam la euh, lim xam am na ci yeneen secret yoo xam ni ku ko bëgg xam da koy woo ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa naka. 221 people. bu Fox Sénégal waa 221 people maa ngi leen di gërëm di leen sant. Hmm. di leen ñaanal mucc xéewal teraanga sax dàq te ngeen muurloo ko. Hmm. ngeen yeggale seen yoon dara bañ leen a pakk bu leen gis benn pakk pakk. Hmm. bu leen gis benn ngaañ di ñaanalit sama Mouhamed mu ñàkk ki ñaan mii. Hmm. ndax Mouhamed ku ma séen ci écran. Hmm. grâce à moom. Hmm. Mouhamed. tegu ma bët. Mouhamed bëgg na ma. Mouhamed yeneen na ma lu ne. ndax tamit bu doon dama yor li ma yàlla may rek toog ci sama ruq bii. dinañ ma fi fekk naam. ndax koo defal. mu gis ku mu gisati muy jàmbar mu ne kaa ma yóbbu ci sama yaay ja. waaye nag da ngaa tax. àdduna xam ma mm-hmm. sama tur yegg na foo xamante ni sama jëmm yeggu fa mm-hmm. may jëflanteeg façon doomu aadama bu ne ci àdduna bi mm-hmm. grâce à yow ma di la ñaanal wér sutura teraanga mucc xéewal di la ñaanal yàlla boo am benn pakk-pakk ku lay fexeel yàlla bu pexeem yegg ci barke Seydina jërëjëf li tax mbokk yi li taxoon sax ñu yegg si ci moom mooy euh, ñun wax naa leen ko fii euh, muy 221 people bi duñ fi jël koo xam ne amul xam-xam moom nag dañ ko yàgg a topp ñun pour am ko pour jël ko entretien loolu rek lañ doon leeral li bëri na nag lu ko yàlla may lu jëm ci wàllu xam-xam ñu bëgg a découvrir maire bi mën ngeen ko woo ci kàttanu yàlla. di leen jëf ba beneen yoon ci kàttanu yàlla.